أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد رب اشرح لي صدري wa yassir li amri waxlal uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu dellusi ci seeni émission jaar-jaari mag ñi fii ci sunu site internet murit point info di sant ñi ci xarala gi ku mel ne sëñ Mbàkke war waxtaane mag mu tedd mu sell mu jeexal dundam gépp ci ànd ak sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di ñaan sunu borom taas ñu ci barkeem muy sëriñ jéeri sëriñ jéeri waa daan sogu sëriñ jéeri waa daan sogo moom nag mi ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax muslaaj ci atum alf wa miatayni wa maanaam mille deux cent soixante ci gàddaay gi way juróomu góor mingi tuddu mamma fa baqis sugu mamma fa baqis sugu moy way juróomu goru way juróomu jigéen mi ngi soxna taqiyatu mom serign jeri jeng mu ñew ci serign bi nekkon na boromu cër bu rëy ci yàlla bi muy ñëw ci Serigne Touba nekkoon na boroomu cër bu rëy ci yàlla comme ni ma ko waxoon amul menn mag ñoom sax ay feewee lañ ñu ci bari bi ñuy ñëw ci Serigne Touba waaye amul benn mag walla benn taalibe ba Serigne Touba seexal boo xam ne yàlla defalu la woon xam-xam laata ngay ñëw ci Serigne Touba yàlla defalu woon ay taxsis ay jagleel yum la defal laata ngay ñëw ci ku tedd ki kon boromub cër bu rëy la woon ci digg ci boromub cër bu rëy la woon ci yàlla way juróom it bàyyi woon na ko xel lool ngir ay kiimaan ak ay xar baax yi mu teel seetlu ci moom ay xar baax ak i kiimtaan yu way juróom teel a seetlu ci moom mu tax bàyyiwoon na ko xel bu baax wax nañu ne daana tare alquraan te fekk booba dalagul daaneka maanaam dalagul jàng loole xarbaax la kimtaan la daana feeñal it ay mbir yu yéeme ak di wax lu ñëwagul daana feeñal ay mbir yu yéeme daan wax kimtaan yu ñëwagul diggam ak Serigne Touba nag bu ñu ko bëggee leeral wala cib tënk diggam ak sëriñ Touba bi sëriñ bi demee ci géej gi la woolu ak njabootam ne leen bis nekki tey Cheikh Ahmadu mooy sama sëriñ seet bis na naka tey Cheikh Ahmadu Bamba mooy sama sëriñ ndax sunu boroom jox na ko garaat boo xam ne ku ko joxul sa bopp loo mën a def yàlla du ko nangu allahu akbar bi Sëriñ Tuubaa nekk ci géej gi la dajale ak njabootam ne leen man kat Cheikh Ahmadou Bamba mooy sama sëriñ bis naka tey jox naa ko sama bopp gis naa ne moom kat ku ko joxut sa mbir sa mbir du jëm fenn te booba gu gisanteegut ak Sëriñ Tuubaa boobee la tàmbali doom ju am bu dee góor mu tuddee ko sëriñ bi doom ju am rek bu dee góor mu tudde ko sëriñ bi seet tëtëtët mag ñi ñu amoon taalibe lañ bu dee jigéen mu tuddee ko soxna jaariyatullah muy maam jaara bu sawee juru sëriñ Tuubaa kon nga xam ne seen alaaqa ñoom ñaar seen relation ba Serigne Touba di nekk ci géej gi la woon kon alaaqa baatiniya la woon waaye doonu zahiriya tudd na sëriñ bi fukki doom soxna jaare juróom benn doom allahu akbar bi sëriñ Tuubaa di nekk ci géej gi sëriñ jiiri waa daan jéeri waa daan tudd na sëriñ Tuubaa fukki doom yu góor tudde soxna jaare juróom benn doom yu jigéen te booba giseen teegut ak Serigne Touba allahu akbar kenn mënu leen a dab ci dab ci dab ak pas-pas dama ne te booba mësta gis sëriñ bi ci zaahir bi sëriñ bi ñibbisee ci tukki géej gi moom Serigne Touba ci la wax sëriñ Modou daggana ne ko demal dëkk bu ñuy wax sàkkal demal dëkk bu ñuy wax sàkkal loolu la wax sëriñ modloo dagana boo fa demee nga laajte moor jéeri sugu laajte fa moor jéeri sugu nga wol ma ko bi moor jéeri sugu la ko daan woowe moor jéeri sugu la ko la ko Sëriñ Tuubaa daan woowe allahu akbar sëriñ jéeri wuyu booba bi mu wuyu see Sëriñ Tuubaa booba la njëkk a gis ku tedd ki ci laahir ci la daal di jébbulu ba mu gisantee rekk la daal di jébbulu def mu baayaa ci zaahir ku ne xam ne kon defoon na mu baayaa ci baatin bi Serigne Touba nekk ci géej gi la joxe woon boppam ci baatin bi mu gisanteeg Serigne Touba te Cheikh Moulim Diop eh, sëñ Modou Dagana woolu ji ko ci la door a jox sëriñ Touba boppam ci zaahir fekk na mu tudd ko fukki doom ak juróom-benn allahu akbar seen himma moo kawe woon mag ñi yal leen yàlla yàlla nu yàlla fayal mag ñi bi mu jébbuloo jox boppam ku tedd ki bi mu joxee boppam ku tàdd ki moom sëriñ jéeri waa daan sugu dafa def ab daanukat ne ci moom di ko liggéeyal di ko liggéeyal guddi ak bëccëg ba sëriñ bi gërëm ko ngërëm loo xam ne mësee su ko gis sëriñ bi mas na ko góobloo ab tool fa ñaaxeen ñaaxeen jolof bi ko tedd ki di nekk ñaaxeen sëñ Tuubaa mës na koo góobloo ab tool ca ñaaxen ak bi mu ñëbb see njaareem mës na ko góobloo ab tool nga xam ne ko digg diir boobu tàqaliwu tàqali ak ku tedd ki foo ko fekk mi ngi ci moom di ko terbiya moom sëriñ jiri sugu waa daan sëriñ jéeri bi ko sëriñ tubaa tarbiya ba pare ni mu daan tarbiya ay taalibeem nu nu doy doy waar la woon ni mu daan yare ay taalibeem dafa sampoon daaree alquran teg fa ay jàngalekat ñuy jàngale alquran nga xam ne moom noonu la daan tarbiya daaree alquran la njëkk samp teg fa ay jàngalekat alquran ñu koy jàngaleel alquran mu samp daaree xam-xam teg fa boroomi xam-xam ñu fay jàngale xam-xam ku toll ci jàng lii lay njëkk a def ci yow ku toll ci jàng lii lay njëkk a def ci yow ci daaray alquran ji la lay yóbbu so jang alquran bo watt ko mu indi le ci daare xam-xam ji nga jang xam-xam bo jang mbolim téré yi jeexal téere yi nu doon jang yi nu daan jang Sénégal budé ko wessu jang la dong buñ ko jox mu wessu jang mu yobbu ko euh, daare tarbiya mu yóbbu ko daaree tarbiya nga xam ne méthode boobu kon ci Serigne Touba la ko la ko la ko jëlee ci Serigne Touba la ko jëlee ndax Serigne Touba noonu la daan yare ay taalibeem daara ji ñett la woon alquran ak xam-xam ak tarbiya ndax benn bis la woo sëñ Mbàkke Buso ne ko daara yi kat dama ko bëggoon a séparer mais la dañoo doonoon benn mu ne ko dama ko bëgg a séparer daare alquran ji ma jox ko sëñ Daba Rahman Lo Abdourahman Lo daare xam-xam ji mu jox ko boroom daaru ak sëñ bu Buso daare tarbi bi mu jox ko sëñ Mandumbe kon mel na ne loolu la sëriñ Jéeri Suguwaa daan royee ci sëriñ Tuubaa moom sëriñ Jéeri ku fonkoon jaamu yàlla la te daan ci yar taalibe yi ku fonkoon jaamu yàlla la te daan ci yar taalibe yi bu ñu ko masaana wax ne diw mii du julli da koy wone ko wax ma loo fi ma liggéey ma fay la ko ndax man duma ànd ak ku dul jaamu yàlla bu ñu ko mësaan a wax ne dongo sàngam moom da du julli day topp liggéey bu metti bi ba du julli da koy woo ñëw mu ne ko wax ma loo fi ma sa liggéey ma fay la ko te nga dem ndax man kat duma ànd ak kurub jaamu yàlla naka noonu kon ci ngay xamee ne ñi sëñ Tuubaa yar ñépp benn bopp lañ ñoom ñëpp ñoo bokk am njàngale ñoo bokkum njàngale wax dañ ne sëriñ Abibu Mbàkke mas na koo def di dem ci jàkka ji am dongaam yoo xam ne dañoo noor si woon di ko sàkketal bi muy dugg ci jàkka ji mu mel ne dafa xelmati ne dañuy sàkket bi mu génnee mu laaj leen ne leen mooy yéen bi ñuy julli da ngeen a julliwuta ñu ne ko mbàkkee nun dañoo newoon ci sa ndigal lii mu laaj leen ne leen fu ngeen ci yamoon bi ñuy bi ñuy nodd ñu mel ne luy nakk-nakkal mu ne leen su ngeen ko waxut kat sàkkit wépp la ñuy tiirite daa dangeen ko defaral ñu doora ne ko fii fii de jàpp nañ ne fi lañ yemoon bi ñuy nodd mu ne tiri leen lépp ñu tiri ko bañ ko dindee ba pare mu ne hakada nii la ko sama sëriñ bu baax ba daan defe sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kon loola dars la bind la boo xam ne Sëriñ Tuubaa noonu la daan yare mag ñi ndaxte boo demee ci Majmu'un Nurayni ba da nga ko fekk mu di ko wax da fekk mu indi fa xadis bi Yonent saa salaam di wax naan xadis bi Yonent bi alayhi salaatu salaam di wax naan boo bokkee kudut julli ndab ndabul lekk boo ko bokkeek moom ngeen di lekk ron we yi dafa am tooke ji ci jóge di rogalaat ci ndab li yow nag doo ko gis ak bët waaye soo ko tibbaalee te yëgoo ko dalay wàlli ñàkk julleem googu dalay wàlli ñàkk julleem googu ndax sab xol day wow ma ngi fay wax tamit ne ku takk doomi kurut julli këllëre gi nga séqoon nag sunu boroom dagg na ca digg ba ku takk doomi kurut julli kóllëre gi nga seqoon ak sunu borom dàgg na tipp ca digg ba Sëriñ Tuubaa ngi wax ci mañ mu xunóoree ni nee na aji julli ki bàyyi julli ki du julli su jubee ndab li def ñam wi ndab li da koy móolu ki dul julli su jubee ndab lu def aw ñam ndab li day lux day lux fi nekk ngir bañ mu jëfandiku ci moom ki dul julli bu jëfandikoo ci ndab ndab li day wax sunu borom ne ko sunu borom yàlla nga nocci barke ci man kon mu mel ne mag ñi waroon Serigne Touba leen Serigne Touba yare woon du sàggane jaamu yàlla waaye mboolem lu ñu def jaamu yàlla ci jiitu lu ñu def lu tamit jaamu yàlla ci jiitu bu ko ñàkkee ñu tere ko bu weeru koor masaa ñëw moom Serigne Jéeri waa Serigne Jéeri waa daan bu weeru koor masaa ñëw day wax ne kuddul woor bu mu laal sama sama liggéey da daan wax kuddul woor bu mu laal sama liggéey loolu la daan wax moom sama liggéey kuddul woor bu mu ko laal kon kooku fonkoon sharia la moom sëriñ jéeri nekkoon na ko ragal yàlla nekkoon na ko ragal yàlla te sàmm dadaa digal taalibe yi ñuy wattandiku tooñ ñuy wattandiku tooñ yàlla ak sunu morom ñuy wattandiku tooñ yàlla ak tooñ seen moroom am na gëléemam gu ma sa ruur ruur toolub jàmbur am na gëléemam gu masa ruur toolub jàmbur mu faye ko borom jël giléem nga faye ko borom tool ba allahu akbar giléem gi dafa ruur toolub jàmbur mu jël giléem nga faye ko borom tool ba allahu akbar loolu de bind bu rëy la guddi gu ne kaamil bu alquran la daan naafila def ko ñaari rakk allahu akbar ñu sonnoon ci jaamu yàlla lañ sëriñ jéeri sugu waa daan guddi gu nekk kaamil bu alquran la daan naafila def ko ñaari rakk nekkoon na ku tabe lool ndax loolu da ko dondu ci sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba bi muy dellu ci boroomam subhaanahu wa taala ngi dellu ci boroomam gannaaw bi mu bàyyi ko waa daan ñëw njaareem am fa juróom-ñaari weer yoo xam ne kiimaan gu def na ko fa juróom-ñaari weer yooyu mu mujj nekk njaareem kiimaan gu ne def na ko fa bi mu ñëwee njaareem sëriñ bi dafa wax sëriñ Malick sëriñ Malick Ndiaye ne ko yéeneel wax ñépp ñu dem ziyaare ko sëriñ Touba dafa wax sëriñ Malick Ndiaye ne ko yéeneel waxal taalibe yépp ne leen ñu dem ziyaare ji sëriñ jéeri waaga euh, euh, sëriñ jéeri waa daan sukku xam ne booba àgg na ci darajee Kamal. am na bés mu xëy wax ne ahlu badr ahlu badrin ñu ngi ci kër sëriñ tubaa gi mu ne ahlu badr ci kër sëriñ tubaa gi lañu fanoon ne ne man mii maa doon maa doon wangu seen fas yi seen fas yi man maa doon wangu seen fas yi allahu akbar ak delloom kon mi ngi tolloog yoor yorub alxames ak dellam ci boroomam ab wàccub liggéey mi ngi tolloog yoor yoru alxames juróom-ñaari fan ci weeru maamu koor juróom fan lay tollool ci weeru maamu koor mi ngi wàccub liggéey 1341 1341 ci la sëriñ jéeri waa daan sug wàcc ab ci atum gàddaay gi ñu andi ko Touba sëriñ bi wax ne nañu ko def fewetu sëriñ Paate Amar sëñ Tuubaa joxe ndigal moo ne nañ ko def ci wetu sëñ Paate Amar sëriñ bi wax sëriñ Masamba Mbàkke ak sëriñ Balla Fally Dieng ak sëriñ Souleymane Diop ñu waajal ko ñetti ñoo ñoo ko waajal sëriñ Masamba Mbàkke sëriñ Balla Fally Dieng ak sëriñ Souleymane Diop ñoo ñetti ñooñu ñoom la sëñ Tuubaa wax ñu waajal ko mu ne leen su ngeen demee Touba na ngeen wax Serigne Mahamadul Moustapha ak Serigne Mahamadul Fadal ñu teewe ko allahu akbar na ngeen wax Serigne Mahamadul Moustapha Serigne Mahamadul Fadal ñu teewe ko ñu teewe denc bi na wax sëriñ Mbàkke bu sama jullee ko allahu akbar sëriñ jiire sëriñ jéeri ku am ku am tawféex la nga xam ne sëriñ Mbàkke bu saa ko jiite mooy ki jiite ki jullee seexul xaddim ca waahir bi nga xamee ne jóge na fi daldi wax ne soxna jaaratullaahi dana bàyyi ko poroxaan ngir fekke si duggoo ba Sëriñ Tuubaa daal ne leen bu ngeen demee soxna jaaratullaahi dana bàyyi ko poroxaan ñëw fekk ci duggo bi kon mbokk yi lii la tënkoon ci dundu Sëriñ Jéeri Waadaan Sugu yàlla nañu yàlla tas ci barkeem te yokk ay leeram ci barkeb Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wa anhum kon mbokki julli di mbokki taalibe yi foofu la ñuy yamale kàddu gi di sant di gërëm di wax ne lu jub ci kàddu yi sunu borom subhaanahu wa la waaye lu ci dëng sunu gàtt fasaaxa la ak sunu ñàkk xam-xam di ko jéggulu mbokk yi taalibe yépp di wax ne wax moom ñett lay déglu ki la raw fuuf gën laa xam li ngay wax kookee ñu ngi koy jégglu ki nga tollool niveau mu xam ko ni nga ko xame kookit ñu ngi koy jégglu jëpp bépp njuumte boo xam ne am na ci wax ji ki ci xamul dara mom day tok rek di déglu kon fofu lañu yamale yemale kàddu in uridu illa al islah mastataxtu wa ma tawfiqiya illa billah